الحمد لله الكريم ذي المنن على اشتغالي بفروض وسنن الحمد لله الكريم ذي المنن على اشتغالي بفروض وسنن شكر جوالي أنه قد ساقني لوطن به نفى ما عاقني وقادني إليه بالتحلي من بعد ما هذب بالتخلي وجرني فيه إلى العلوم والفوز والعمل بالمعلوم ثم صلاة بسلام تبعا على الذي قصدي أن أتبعا هل الذي من بمراده اقتدى في السر والجهر يكون مقتدى هو الذي هاد للمدينة بأمر ربه فصان دينا وسيلتي لمالك الرفيع محمد الخير الورى شفيع وآله وسهبه النجوم alqaahiri nnufuusi warrajiim jërë ngeen jëf mbokk yi nuy seetaan fu ngeen mënti nekk ci biir réew mi di Sénégal ak ci bitim réew nuyoon nañ leen fii ci grande mosquée bu Touba tey jii di mardi dëppoog le 11 Euh, juillet 2023 ñu nekk nag ci wàccaayu bisub xasida di journée xasida bi nga xam ne Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké moom ba Bassirou di xalifa général des Mourides moo ko santaane ngir ñu amal ko ci dëkk bu sell bi di Touba waaye ci biir réew mi waaye nag ni nga xam ne noonu lañ ko amalee ci at yi weesu jël nañu mboole matuwaay yi ngir bépp bërëb boo xamante nii rek war nañ faa amal njàngum xasida gi moo xam ci durus la moo xam ci rajas la moo xam ci njàngum yëkkati la loolee lépp ñu ngi ci installation yi ñu ngi ci dernier réglage ñu ngi fii nag benn ci site yi nga xam ne euh, ci la ñuy amalee njàngum xasida googu muy fii ci penku euh, jumaay Tuubaa ji fi nga xam ne fi lay sëriñ Amsatu Mbàkke moom Serigne Sohaibou di nekk ak waa ahlu xasida ñoom ñoo fare fii ci penku euh, jumaa ji ni ngeen ko gisee sama ginnaaw ñu ngi ci installation li nga xam ne moom moo di tente yi ngir fexe ba lépp yemb laata ñuy àgg ci bés ba jël nañ boole matuwaay yi gis ngeen li nga xam ne moo jëm ci wàllum installation yi bàyyiwuñ benn fànn lépp loo xam ne rek moo jëm ci euh, dundal euh, ni bis bi ni nga xam ne noonu la ko euh, sëriñ bi santaane muy Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké di xalifa général des Mourides jël nañ ko ngir fexe ba lépp amee ci ni nga xam ne noonu la ko sëriñ bi bëggee waaye yeneen murid yi nekk ci di ko waajal ci ay xéewal ci ay lekk ci ay naan comme ni ko sëriñ Tuubaa waxoo woon rek ñaanee woon ko boromam wacantaxami wa sarabi yaa karim sikran wa sukran wa sawaban la yarim suñ borom nag ma defal sama lekk ak sama naan man ahmadul xadim muy eh, ak sikar waaye tamit doon ak tudd yàlla goo xam ne do do eh, ab yolam dootu dagg ba mukk kon loolu rek mooy li nga xam ne moom lañ ci nekk incha allahu rabbi duñ bëgg nag leen mbooleem euh, comité bi nga xam ne mooy comité euh, presse bi nga xam ne ñooy euh, groupe média bi nga xam ne mooy yoonu murid yëpp muy GMT bi ñu ñu ci nekk Serigne Assane nekk ca bopp ak ñu mbooleem ñu ko àndal ab Abdoulaye Diop waaye ak mbooleem jëwriñ yi nga xam ne ñoo nekk liggéey boobu fas yéene nañu lépp loo xam ne mi fi am mbooleem site yi nga xam ne mi ngi ci bi ak ci yeneen yi nga xam ne muy daaru daaru Xudóos te waa wilaaya dafa nekk ak mbooleem site yëpp rek lu fay nekk rek danañ leen ko dégtal ci am njàng gi ci am rajas ak mbooleem xew-xew yi nga xam ne moom mi ngi fi am ba ci sikar si ak lépp kon da ngeen ñuy topp rek ci mbooleem plateforme yoonu murit gi rek ñu dëkkal leen mbooleem li nga xam ne mooy am te lépp nag ñuy ñaan Cheikh Mamadou Mountakha yàgg fi lool ànd ko wér mu am ko ni mu ko bëggee nu nit ñu def ko ni mu ko bëggee moom sëriñ bi sax di fi wéy di yàgg lool lim ci bëgg am ko nu nit liñ bëgg ci moom mu am ko muy mu yàgg fi lool te wér wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala لي بذاك ولإخواني جميعا سعادة الدار حقا يا سميع هب لي في هذا الدعاء الإجابة بالمصطفى والآل والصحابة